Euh, tey la Sénégal di màggal ni àddina bi wërngal këpp bis bi ñu jagleel wàllu pecc muy danse euh, ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ci yëngu mu yemoo ak ministre bu bees bi di Youssou Ndour ñu dénk ko wàllu culture euh, ñoom wax nañu daal lépp loo xam ne jëm na ci seen wàllu ñaxtu ak naka lañuy def ba lii di pecc mi gën a mën a am li nga xam ni noonee lañ ko bëggee mu jëm ca kanam dañ ci ànd ak Ibou Diouf ci jàngatam ak Jaafara Ba ñiy yëngu ci wàllu caada di ko xamle saa su nekk fecc doon lu am solo lool ci wàllu caada ak cosaanu réew loole tax saa su nekk dañ ci war di suuxat fii ci senegal nag ñu gis ne fecc bi def na ay jéego yu rëy. avancé na mën naa ko wax benn côté avancé na parce que léegi fecc yaa ngi gis fecc di la yóbbu Europe partout dans le monde nga si fecc ñu lay fay xaalis avancement la ay temps da nga daan fecc ay temps temps sax danga daan fecc di làqatu léegi nag fecc yu na ku ne bëgg na fecc wax ne mu ngi avance nànk-nànk parce que am nay compagnie vajo mais du loolu mooy compréhension bi ci fecc loolu la nit ñi war a am ak formation bi donc loolu bu amee defe naa ñëpp danañu mun a ànd ci nga xamante ni day doon développement économique mais aussi euh, développement culturel boo xamante ni nit ñi dañ koy am. fii ci Sénégal nag bëri na ñuy ñaawlu rek xeetu pecc bi ñu gis jamono yi loole nag ñi si yëngu gis ne ñëpp ci war a dugal seen loxo. li ngay gis si si télé bi en particulier fecc amateur la bien vrai mooy liy xew rek liy xew ku ne def lu la neex kërëb kërëb mais fecc dëggantaan fecc doon professionnel da nga jàng mu doon métier. mu doon loo xam ne danga koy def kon ngay def outil métier loo xam ne mën nga si teral sa ndey ak sa baay ak say doom ak say famille. ñi ñi ñi wax aussi mooy dëgg foog ñu taxaw nag benn moment parce que li ñuy wane nag du suñu aad ak cosaan c'est c'est vrai que am na ay fecc yu bëri mode yu bëri mais façon bi nga koy defee dafa am solo loolu dañ ko war a càmbar te am naa yaakaar aussi presse bi loolu war na ci jouer rôle bu am solo daal parce que mbir mun nga am don mais foog nga mun a am li nga xamante ni mooy formation mu nekk académique wala nga dugg ci compagnie wala troupe yi ñu formé la. donte formation lu am solo la wante infrastructure la lu baax la ngir jëmale kanam rek li nga xamante ne mooy fecc fii ci Sénégal. journée internationale bi ñu jagleel fecc nag doon na rek ay xumbite yu rëy tax na bi fii ci Sénégal yëpp ñuy yëngu ci wàllu fecc tase rek waxtaan ci lépp lu mën a jëmale kanam lii di fecc fii ci Sénégal ndax loolu ñëpp gis nañ ne bokk na ci li mën suqali tourisme bi fii ci suñu réew